Euh, Pape Cissé sama sama rakk bu baax la donc euh, ñi ngi xamante depuis Grèce euh, mu jox ma cër ma nekk conseiller di ko di ko di ko teg si yoon te lu lépp lum ko mës a wax si conseil da koy da koy da koy da koy appliqué donc euh, bi ma wooyee ne ma day day takk mari donc euh, dama sawar daw ñëw fii parce que man j'ai pas l'habitude di dem si ay xew mais su ma jógee rek am na lu war am na am na lu tax quoi donc euh, di ko di ko ñaanal yàlla na sëy bi barke ah mu jikko voilà donc loolu rek laa ko mën a ñaanal parce que sama rakk bu baax la nag waaw waaw di ko ñaanal rek mu jàpp sama sama rakk bi bu baax jàppale ko bu baax parce que ñëpp xam nañu carrière football nu mu mel donc di ko conseillé mu gën a jàpp euh, jàppale sama rakk bi muy Pape Pape Cissé te yàlla na yàlla na leen yàlla defal jàmm ñoom ñaar yëpp ah sëy bi barke loolu la ñuy ñaan. ñun mu mel ni koor gi dafa daal di ala waaw waaw mais moom tam ñu koy ñaanal <laughs> ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla na ko jig yàlla yàlla na sëy bi barke tamit quoi waaw parce que voilà takk na jabar tey ñaareel donc euh, dam koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla na ko jig te yàlla na ko sëy bi barke. ñu gis ne Coupe d'Afrique ñëw na fi nag la première fois ñëpp daal di apprécier daal di kontaan ci li est-ce que mën nañu xaar nag bu mag bi mooy Coupe du monde. waaw bon yàlla yàlla moo xam équipe bi ñu yore nii waruñu ragal kenn donc euh, instant yi jotagul mais nañu ñaan yàlla rek buñ demee Coupe d'Afrique. Euh, premier objectif bi mooy euh, ne équipe bi def li 2002 def mhm. wala dépassé ko quoi. voilà loolu mooy objectif bi donc euh, coupe moom pour le moment bon yàlla moo xam quoi mais daal objectif bi mooy nañu def li 2002 def. Mhm. ñu maanaam dem ba quart de finale wala dem demi finale wala finale quoi. Mhm. mais est-ce que am nga ci yaakaar ci équipe bu bees. am naa si yaakaar ay xale yu xarañ nañ te tey moom li ñuy wax Sénégal yëpp ñu ngi seen ginnaaw. te yaakaar naa ni mën nañu am dara foofu quoi nañu sore incha